aynama takunu yudlikum mawtu la kuntum fi burujin mushayyada boo nekkoon ca palais gars yi di la garder pomp ko benn microbe néew fa. wala tax loolu fii daa mag dee. da damay wax ne ab murit xam nga nit ñi dañoo mën a gàllankoor. Ah. mën a yàqate te mën a soboote. da ngaa da ngaa jàpp ne daa am lu ñu. yooyu dama damay wax ne xam nga. xam nga buñ demee ba am ngemee am fitu naan ay sëñ bi daa war a jël responsabilité am ak tere ak nangam yooyu ah. yooyu buñ ko dee wax xam nga hmm. xam nga loolu lu ko jar ci àdduna man gisuma ko hmm. ah, bi moom bu teree daje daje nit ñi du tax du tee du te nit ñi dee moom mm-hmm. Mm-hmm. dee ci nekk ci wut lu baax xanaa moo gën dee ci mooy nit ñi dee ci auberge yi na te nekk faak soxna si jàmbur wala ñu nekk faak lu ñu fa war te nekk mm-hmm. Ah? Ah? ñi jug di def lu bon di naan sàngara ba dee ca tam naqari yàlla nag. kon daal waxi teri màggal moom yooyu du ay maanaam mooy mooy luñ koy tere luñ koy tere léegi am na ñu màggalut di am fi ne feebar bi fa mu tàmbalee xamuñu màggal. feebar bi fa mu tàmbalee xamuñu màggal xamuñu yàlla. kon looy wax ñi nga xam ne dañuy tiit naan màggalu Kazu Rajab day tombé coronavirus parce que ñi ngi naan Touba am na fi. waaw man daal man daal li ma gëm mooy lu ma kenn tawat te it alwiqaayatu xayru min al-ilaaja maanaam maanaam fegu moo gën faju luñ digle daal te docteur lii la ko ci mën a faju ci fegu nañ ko def waaye dawug dee ba bañ a màggal si moom léegi yow bu fekkee ne yow yàlla daa programmer ci tawat ji ci nga war a dee boo màggal si da nga ciy dee. ndax yàlla bi mu koy wàccee yow programme na balaala balaa la buy ñëw ci ngay dee yow fi ne yàlla waajal na ñi ci war a dee ñii ci sibur la ñuy dee ñii ci ngas la ñuy dee ñii ci accident la ñuy ah, ñii dañ leen di jam ñii dañ leen fekk soxna jàmbur rey leen ñii dañuy jékki-jékki na dal ku ne ak la lay rey mais ki yàlla programme wut na tawat jii moo koy rey moom mënoo ko caa rey maanaam bu newoon ci seen biir di lëmbee du ca dee ki ci yàlla programme boo laqatu woon doo nuyoo doo gisu jant doo gis weerit maanaam fa micro bay aw ba dugg fi yow doo ko yëg ba mu la moytandikul ngi nag war na waaye bu nu jékki-jékki rek ay ay ay màggal ak même même même ñenn ñi bëgg a jël ay engagement na dañoo war a wax na sëñ bi ñaan xam nga teel bi li ñu war na sëñ bi ñaan sëñ bi juboo na yàlla na ñaan na sëñ bi ñaan moo léegi kon sëñ bi na tere màggale mooy sëñ mënu ci dara ah anta rahimu samadu rahmanu al muminul muhayminul bala ikfil bala wa jumlatal waba wa suq ilal a'da'i kulla da anta rahimu samadu rahman al muminul muhayminul mën naanu fil balaa wa jumlatal wabaa'i wa suuq ilal a'daa'i kulla daa'i ñaan yàlla daal waan si shifaayika makkaana daa'i kenn ku nekk sañ na koo ñaan waaye nit mënta daw ak dee aynama takunu yudrikumul mawtu wala kuntu fi burujin mushayyada dégg nga te ñu xam ne gis nga bokk yi baaxul waaw baaxul waaw soboote baaxul xam nga soboote mooy gis nga nii sëñ mel ñoñom mel ni nit ñi bëggee ko ni lu sëñ Tuubaa liggéey la ba yàlla fayee ko billaahi ay quelque ni ki xalaat hmm. ak i pexe ki tic tac taxul nit ñi découragé ci sëñ Tuubaa barke Seexul Xadiim ndax nun sunu alal sunu bakkan sunu lépp lañ ko jox sëñ Tuubaa te ñaareel ba sëñ bi la soob mu boole ñu ci programme am déedéet déedéet loolu loolu loolu mënoo ko dégg nga loolu nag bu amee jëmmi taalibe bu nekk boo waree moytandiku silwise daal nan ko def bu dee nee na da ngaa war di raxasu del raxasu bu dee da ngaa war a moytandiku del moytandiku li ngay lekk na koy xool ne loolu lépp moom la waaye nag nañ bàyyi nangam xam nga balaa da koy daw ngir balaa yi waaye nag mënoo daw balaa ngir balaa bu yàlla programme ni lii mbas moo xam ne Gana Messere la ci tawat ju ñuy wax nangam 2020 ci lay dee maanaam kenn mënta tee ba Gana Messere dee ci du dee ci 2020 jooju. gëm nga coronavirus gëm nga. ko xamul sax xam man man lu ma lu ma man moom non xaw ma ko yàlla xam xaw ma. la ma xaw ma Chine it man xaw laa xam ak yeneen dëkk yeeg yooyu xaw ma jooju tawat yàlla xam na ko xaw ma ko xaw ma ko te ñaanalu ma ko kenn tey it dañoo war a def comme dal hmm. ñu xam ne diw doomi diwa quartier sàngam la dëkk ci Touba béréb sàngam la doon liggéeyi di way soxnaam ñu xam ko bu baax waaye ñun jékki-jékki naan dara xew na dëkk sàngam te mënoo dox ba daje ku ne kooku sa mbokk la woon kooku ku mu doon duñ wax ñim doon ñu xam ko dañuy gën a dimbale bu fekkee am na nu mooy tandiku ko waaye jékki-jékki rek te boon nañ fi ne am na daarul moxti ba yàgg lu ñu waxalaat seen bopp amul ah xam nga Sénégal seen problème mooy lu am. est-ce que amul euh, ñeneen bi. xeex diine moom yuriduna an yutfiu nuurallah bi afwahihim ah. jaarale ci jàngoro ji. waaw xam nga xam nga tey. parce que bu ñu demee ba naan màkk jeeg umra geeg yu mel noonu. xam nga loolu Trump seen waa ji wax na ko lu leer moom Iblis représentant Iblis bu mag boobu. di Trump waaw. représentant Iblis mooy Donald Trump ku bon la te bañ lislaam dégg nga moom dafa wax ne. dafa wax ne ajug màkk gi da koo tiital. te seen yonent bi leen digaloon ñu ñëw di aj si ak di umra daal na lii nag maanaam pexe muñ mën a def ba mu dakk ndax tiital na ko léegi ku ne bu aj makka am léegi kon dàq nga xajjul baytillaahil xaraam li man istataa ilayhi sabila kon saa yu ne bu aj am rek mm, dindi leen ponkub lislaam kon léegi tere nañ julli tere nañ koor tere nañ natt asaka loolu moom xaw ma dana am xaw ma daay problème mu jullit ñi kon ñoom moom nañ xam ne kon léegi seen pas-pas moom problème baa ngi noonu léegi nag noonu mu mel la amay représentant am na ñoo xam ne déroulement bii di am ci doxu ni Sëñ Tuubaa neexu leen barki dee ma lañ jógee Poroxaan riir mi mel ay ñu ñëw ñuy waajal Kazu Rajab bi riir mi mel ni ay bu noppee yaangi ngi naan Daarul Muxti bu nu tabbee yaa ngi tabbee ci koor gi maanaam jëmmi Sëñ Tuubaa yëngatu Sëñ moo jaaxal adduna bi maanaam comité murit gii maanaam déroulement bi mu am doxin wi mu am ci pas-pas ak volontaire gi nit am daw jëm ci Serigne Touba loolu moo tëj seen bopp yi léegi xam nga bàyyi leen Serigne Touba boo ko waxee duñ ko bàyyi Serigne Touba jur topp boo ko waxee yow la ñuy wër pour nuñ la lijjantee waaye mënoo noo tax a bàyyi bàyyi bàyyi Serigne Touba léegi nag ñu bëgg na léegi nañ seet léegi bu ne ab dara xew na man lu ne lañ daan wax Ebola amoon na xoolal Cheikh Sidi Moutar bi ne fi Ebola lu Cheikh Sidi Moutar wax dane doo leen ko gis looloo gënoon a garaaw mu riir te ab jullit dafa war a rafet jor ab julli dafa war a rafet njort gis nga yàlla bu waccee balaa wàcce ab nattu ku mën a ku ku yàlla tudd na nattu bi dana dal sa kaw yàlla dana teg nattu bi sa kaw bu fekkee am na yit ñi nga xam ne ñoo yor wàll wow ñoom it duñ bàyyi ñu ko yurut di wër mbedd yi yeeg dëkk yi di terere yi am réew buñ ko tànnee buñ ne sécurité bu ne am na lu xew ña yor sécurité dañoo war a jóg dem ca gox booba xool ko contrôler la loola mais doo nekk ba ñu nit ñi nga jóge fële pip pip pip pip pip ñuy corné ko wëri koñ ji baalay mbel médecin euh, nga loolu la mort amul sens tawat am na ñi yor wàllu wér gi yaram kenn mënta xëccoo ak ñoom ndax man feebar bu ma xamut te xaw ma nu muy dalee mënu ma caa wax xaw ma ko waaye ñoom ñoo war a dimbale bu nekkaa sàngam am na Tuuba automatiquement rek war nañoo ñëw ñoom déplacé wu toppatoo ko xool ko bu dee dëgg ñu ne am na moytandiku bu dee zone bu ñu war baare ñu baaree ko bu dee lu ñu war a régler ñu régler ko ubbi ci boppi nit ñi parce que séntu tawat ji ñëwagul dong nga a metti feebar ah kon buñ ko am nañ ca commentaire wax naa ko ba tey fi ne bu football bi ñëwee ñëpp ay coach di wërta dugale nii di wërta dóor penalty yi waruñoo classé diw bu làmb nekk ay manager diw wërta def nangam nangam Sénégal la yàlla bindee lu jóg ñu coow ca fi ne lii niñ ko yanoo sax Italie gee gën a garaawle ay camp ay cas Italie yanoo wuñ ko noonu waaye ñun fi ne dox di sëqat képp boo nga defee wala nga soj ñu ne tur bi sax mënuñu ko wax coronavirus moom am na ñoo xam ne winis sax lu ne la ñuy xamuñu sax nu nu mu tudd waaw kon ma maa ngi leen di gërëm nañu rafet njort te màggal si te ñaan sëñ Fallu te mucc ñëw ci jàmm dellu ci jàmm kum dal yàlla na nga wér kum dalul yàlla bu mu la dal ci barke Cheikh Amadou Bamba ab julli day rafet njort jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah